Sonko Ousmane buñ koy dégg bu ma ko déggee mu wax ni dafa bëgg a changer système bi ba ñëpp di ko répéter damay wax ni dafa juum parce que Sénégal amuñu problème de système problème mentalité lañu am ndax système bi boo ko jàngatee bu baax a baax depuis les indépendances dafa am ay crise politique majeure yu fi jaar muy crise 62 crise 68 crise 1988 bu 93 mais aussi ak ñaari alternance euh, Bo ci raxé dolli ay choc économique ak sociaux nga xamni ay syndicats ay grèves yu metti amna fi ak aussi ay crise économique yu metti amna fi euh yëpp li mu jur moy dafa nek système bo xamni dañ ko éprouver manam dañ ko tester euh, di am ci soppi yuñ ci changer ba ñu am système bu dëgër dëgër dëgër dëgër loolu moo waral d'ailleurs euh, xam nga système li ci ëpp solo mooy du système bi mais ñi animer système bi bu fekkente ne bii euh, góor ak jigéen yu animer système bi euh, dañu jub dañu bëgg seen réew dañu compétent système boobu day baax mais fekkante ni bii système bi ñu koy animer mais jubuñu bëgguñu seen réew amuñu compétence mais système bob ak lu mu lu ko tabax tabax ak luñ ko bind ci bind mu rafet ba système bobu du du baax té xam nga système euh, euh, Sénégal bu fekkente bi tey euh, am nañu lu ëpp trois cent partis lu ëpp quarante syndicats def nañu ñaari alternance kon sénégalais bi am na possibilité à chaque fois bu tegee ay dirigeants doxuñu aussi bien ci maire yi ci conseil départementaux yi ci assemblée ci président de la république je veux dire sénégalais am changer de dirigeant nga rax ci dolli un président yi nga ni jaar mais président yooyu euh, de Dakar fi de ci monde rural bi président système bi école publique pour bépp doomu Sénégal nga nek doomu baykat doomu doomu doomu journaliste doomu fonctionnaire doomu médecin wala avocat wala juge ak nga nga nga nekk doom ko doom joo xam ni dafa jógee ci ci ci ci milieu boo xam ne dañu ñàkk wala milieu boo xamante ni bii dañu dañu am ak lu ma doon am nga chance pour foo bëgg a yegg ci système bi nga yegg fa moo waral sax ku Ousmane ku mel ni Ousmane Sonko nekk inspecteur des des impôts ku mel ni man ma nekk euh, professeur parce que système bi moo ko moo ñu ko moo ñu ko moo ñu ko permettre donc ñu am système boo xamante ne bii. système bu bu bu dëgër la soo bëggee eh, tey nga feebar mais hôpital euh, am tabax hôpital pour nga faju tey ji bëggee dem ci réew mi foo bëgg a dem mën ngaa dem sans euh, restriction loolu mooy baromètre yi nga xamante ne bii moo ci moo ci moo ci ëpp solo ensuite wàllu yoon tey jii euh, citoyen bi am na possibilité dem porter plainte dem police ba gendarmerie ba tribunal eh, bis bu nekk ñu àtte nit jox ko ay droit te porter plainte kon système système bu la système dafa parfait amul benn fenn ci àdduna bi xam administration bi li wax euh, donc euh, li privilège corporatrice nga xam ni da ngay da ngay nekk da ngeen di nekk ci administration bi mën ay euh, donc fonds commun tout def commission ay au nom de quoi ay sénégalais man man di euh, seddo ay sénégalais ci sénégalais am terrain sur la base simplement d'une commission que un sénégalais duñ ko assemblée comportement anti-républicain am aussi dysfonctionnement donc le système d'accord mais système bi góoma ne sax nit mën na ko changer euh légui nag li am nag moy problème mentalité sénégalais yi dafa am ci ay certitude yu ñu toog waaye aussi dafa am ben dose de irrationalité manam Sénégal bi tey bu lu ko dal du japp ni am na ci responsabilité da fay japp toujours ni nit moko tek wala walla keneen moo ko loolu dañ ko war a changer sénégalais bu bopam day metti sax au lieu mu dem hôpital du dem hôpital day nekk ci ay considération yoo xam ni subjective ba feebar bi gañe ko ba mu bëgg a dee doo ko dem hôpital ensuite xale yi dañ koy fekk mu toog nga ne ko yow la dal yëpp état moo la ko teg te mu ne xale boo xam ni nanguwul jàng nanguwul wut mais loolu boo ko waxee xale mais yaa ko yaa ko gaañ ensuite boo gisee télé yeeg rajo yi tey ñu ngi ciy invité tey dañuy jël niveau bi dafay gën a baissé parce que politiciens yoo xam ne amuñu métier wala acti activistes yoo xam ni nanguwul ñëw liggéey wala ay ay ay ay sëriñ tariyaax yoo xamante ni bii di wax ci lu ñu xam ak ci lu ñu lu ñu xamul tey jii ñoom ñooy def ay faits divers xam nga boo xoolee réseau sociaux yi tey. Euh, ak tey euh, chantage ah donc stigmatisation xeexante saagante yooyu moo ci nekk du journaux journal boo ubbi au lieu mu am ay informations yu utile mais yi ñuy jiital mooy ay faits divers di xeex naag diw diw saaga naag diw yooyu mooy tax niveau bi gën a baax parce que sénégalais tey dañ leen maintenir ci li ñuy wax ignorance ak obscurantisme ignorance maanaam lu bëri sénégalais daf ko réeréer mais obscurantisme ñoo xamante ne bii dañ leen di réeral pour jariñoo leen. ñun li ñuy prôné moo ñu changer mentalité yi parce que développement ak sous développement yëpp problème de mentalité nit ki yaa ngi libre ci sa bopp ci sa xalaat yaa ngi euh, donc yaa ngi am économie yaa ngi def am sa indépendance ci boo changer complètement sa sa mentalité gëm ni loolu war naa mën a nekk. il faut irrationalité bi nga xam ne moom Sénégal di bëri di doxee nga xamante ne bii même bu ñuy fubal nawetaan yi boo ci demee dañuy yaakaar ni sëriñ bi. Euh, moo mën a gagné match bi danaa sëriñ bi nee na dinaa am dinaa am ñaari but match bi trois buts la ak yu kenn xamul donc yooyu yooyu yëpp dañ koy installé ci xale bi donc li ñu war a def mooy li ñuy wax homo sénégalensis maanaam sénégalais bi doo koy judd dañ ko gëmloo ni dañ ko gëmloo liggéey dañ ko gëmloo mérite nañ ko wax ne war ngaa mën a dëggal sa bopp foo war a foo bëgg a yegg ci sa ci sa njàmbarte ci sa effort war nga fa mën a war nga fa mën a yegg ñu koy yar ci ci facilité di ko yar aussi ni euh, yàpp garaawul bu sa papa sa war na ko mën a lijjanti wala sa sa sa mbokk sàngam war na ko mën a lijjanti donc loolu la ñuy wax il faut ñu changer mentalité yi sénégal yi nekk ci mentalité de responsabilité lu la dal nga xam ni man san bopp d'abord am naa ci responsabilité loolu ma jëm ko corriger bala ma wax keneen mais aussi engagement ci sa ci sa réew engagement bu bu wér wér loolu buñ ko deful